vendredi passé euh, am na ñu ñu délégué ci euh, collège bi ñu rencontré directeur général d'ailleurs sax moom moo leen woolu moom moo woolu euh, les secrétaires généraux mm-hmm. muy SYNPICS muy CNTS muy SYNPAP ñu dem fa vendredi mm-hmm. waxtaan nañu d'abord ci li ñu waxtaan li jubóowuñu mm-hmm. ci ci ci ay kàddu parce que moi je pense que ni dafa am loo xamee ne que nañ ko def goo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu moi je pense que suñ ko waxtaanee euh, ñu waxtaanee benn mbir ci benn fan yéen sax assemblée am na loo xamee ne que bu ngeen ko waxtaanee ba am fu mu yem bu séance bi jeexee da ngeen di tëj renouvelé waat ba heure boo leen xamee ne que kii ngeen ci ngeen def vote mais ci li ma la mën a wax mooy euh, dañ ko teg ci ay base yu leer base yu leer yi mooy lu ñu voté à l'assemblée voté à l'Assemblée ba ñëpp d'accord ñu jël ko tekk incidence financière boobu noonu ñu waroon ko fayee ko sax normalement au mois de janvier dañu waroon a commencer mais les choses ont traîné parce que xam ngeen agenda politique bi ni mu demee woon ci ñeen ñëpp muy yéen ñi nekk pouvoir ak ñeneen ñi nekkoon opposition bi loolu yëpp weesoo ñu jël li ñu jël teg ko fi ñu ko war a teg yóbbu ko inspection du travail yóbbu ko tribunal du travail loolu yëpp jàll normal c'est-à-dire que ni defuñu affaire informelle lépp lu ñu def teg nañ ko ci ay bases yu légal léegi su loolu ñëwee am mooy am na ci ñaari parti yi nga xamee ne dañu war a waxtaan am na ñu nanguwul déglu mais ñemewuñu dem loolu laa la bëgg expliquer dama ne la am na ñu nanguwul déglu xam nga lu wax am na ñu nanguwul déglu un accord d'entreprise accord d'entreprise la ça n'a rien à voir ak décret le décret c'est le décret de financement de l'audiovisuel public moom la président de la république daa di euh, signé décret boobu moom moo tingoom li nga xamee ni que moom mooy accord bi moom moo war a mën a tax accord boobu noonu mu légal accord boobu noonu ñëw na jaar na fi mu war a jaar et moi je pense que euh, sëñ bi su fekkee ni yow fekk nga benn accord fay nañ la premier mois fay nañ la deuxième mois légal légal fay nañ la premier mois fay nañ le deuxième mois mhm. troisième mois ñu toog ba vendredi vendredi bii passé ñu ni il faut qu'on reprenne les bulletin de salaire et que ñu nuy fay sur la base des salaires de de, de mars mm, c'est-à-dire que ni accord kon dañuy yëkkati accord bi teg fale te accord maanaam accord d'entreprise mooy loo xamee ni que c'est des acquis lan moo wund woon accord yooyu ngeen xeex ko ba jot ko waaw parce que xam nga accord dafay caduc. oui dix ans yu ne war nañu renouveler te accord mooy loo xamee ni que. Mhm. Euh, dëgg fa neex yàlla ñoom ñiy assemblée keneen a keneen ñoo ci am. les acquis on les conserve et ensuite ñu xool lan la ñuy def pour joyantiwaat pour que affaire yi gën a baax loolu mooy accord accord moom amul benn accord boo xamee ni que da ñëw di wàññi. accord d'entreprise lu ñu waxtaanee ba d'accord mhm. kër gi nii lay doxee lundi lii la ñuy togg mardi lii la ñuy togg mercredi lii la ñuy def. <laughs> moi je pense que ni kenn ku si ne ci ñun bu ci tënkoo yam leen yam leen góor dégg nag am na kenn ku jóge place am moi je pense que ni noonu la noonu la demee mais ci li ma ko mën a expliquer moom pour que mu mën a comprendre y a de ces choses yoo xamee ni que nit ñi dañu am espoir te nit ñi aussi itam xëyuñu xëy di mbëkk miir yi di dox comme doxinu gunóor dox ba mbëkk miir bi dellu si xam ne fii du yoon bi du loolu de nit ñi dañuy toog waxtaane benn mbir ba mu sotti doog koy teg parce que xale yi dañu am espoir ci ñi nga xamee ne que ñoo fi nekk farak ñoom ànd ak ñoom parce que le vote est secret mais ñeme naa waat ni tey jii nii boo jëloon 60 pour cent des travailleurs de la RTS ils ont voté utile donc moi je pense que ni yaakaar boobu rek déjà rek même bu woon teg affaire accord accord bi moom c'est solide. accord mooy loo xamee ne que demal fu la neex ubbi livre bu la neex accord mooy loo xamee ne que intouchable. je pense que ni foofu la ñu toll ci degré de compréhension ba nga xamee ni que kenn waruta laal ak i jaambur yow nga am sa kër tabax sa kër ba mu yànj xëy suba ñu ne la léegi ci pantre ba ngay fanaan c'est-à-dire que xam nga loolu xel mënu koo nangu. c'est ça c'est important. Oh, on a na tam li ñuy li ñuy seetu ci bi moo tax moom mu jël mesure prudente boobu parce que il faut considérer cette mesure comme une mesure prudente par rapport ak décret décret décret bi nga décret d'application beeg léegi yooyu. parce que y' a beaucoup de décrets yi nga xam ne tam président Macky Sall signé na ko il faudra que peut-être que euh, le président le nouveau président balaa mu ciy àddu. là-bas vous parlez de décret. nous on parle d' accord. d' accord je sais nee nga sànq de bi nee nga sànq de bi son excellence Bassirou Diomaye Faye. su ko neexoon. tey tey tey mu abrogé décret. waaw loolu laa ca cëggal guyam la yàlla ko may. Mm. Pape Alé moom la yàlla teg ci boppu RTS. bu ko neexoon tey tey tey mu xool benn directeur ni ko doyatuloo ma fi nga nekk wàccal nga delluwaat journal loolu moom la ko yàlla may mais gis na accord cest à mooy li ñëpp li bukki di wax naan li ñëpp waxee dëgg mooy li ñëpp àndandoo bokk ko ba ci et puis ma wax la ma attirer sa attention ci beneen affaire boo génnee benn circulaire nga ne amoon na ay avance tabaski mille yoo xamee ni que dañ leen ko doon fay mais indûment payé kenn xamul sax loolu fu mu jóge parce que c'est pas indûment payé ñun RTS dafa am lu ñu fa fekk loo xamee ni que mooy les cent mille de l'État bu la ko État joxee veillu tabaski bàyyi la nga nooyi deux mois chaque mois mu dagg la ko dix mille ba mu jeex loolu c'est pas c'est pas indûment mooy benn ñaareel bi wax ma ban service de l'État booy dégg bu amul fonds commun ñun benn yoon lañ ko am ci année bi am na service yoo xam ne trois fois lañ ko am par mois euh, kii euh, chaque euh, chaque mois nañ ko chaque trois mois nañ ko am mais aujourd'hui te ñun yooyu ay miettes la woon cent quatre-vingt-seize mille par agent mais am na fi service yoo xam ne un million sept cent mille huit cent mille et cetera et cetera quand on dit que ces fonds communs là yooyu ay wax yi ñu daanu ci saret bi la moi je pense que même yow honorable député tey jii nii soo ko déggoon peut-être nag déggoo woon amaguloo woon information bi njiit yi amuñu woon information yi moo tax ñun fi ñu toll nii jusqu'à présent doo dégg ñu tudd Pape Alé duñ ko tudd ñun dañuy waxtaan ak autorité yi nga xam ne que ñoo ŋànk réew mi ñu mel ni yow ñu mel ni Diomaye fay ba si euh, son excellence Diomaye Faye pour wax ko di dafa am ñoo xam dañu am ci ñoom yaakaar te xëyuñu suba di def naka sudul noonu te teguñu ko fenn dañuy teg fii li ñuy waxtaane fii nii ay yëf la yu ñu teg sur la base juridique indiwuma sax këyit pour pour jéem a tatone jéem a làmbaatu loo xamee ni que c'est parce que li ñuy wax ni dañ ko dund bokk collège des délégués di dem réunion di fekkee réunion yi di waxtaane kër gi di jéem a joyante pour que RTS mu nekk benn ba ci xoo mës amul kër gu mu amul mais nag dañuy woo ñëpp pour que ñu ñëw ñu toog nekk benn pour jéem xool naka la ñuy def ba suñu accueil yi nii ñu conservé ko. Euh, honorable foofu je crois que parce que il a une chose boo xamante ne c'est intéressant te loo xamante une loo xamante ni kenn mënu ko nier les droits acquis on n'y touche pas. sincèrement te aujourd'hui en tant que député je crois que vous êtes interpellé pour savoir un peu qu'est-ce que euh, ñun en tant que ñu leen mën demande mooy qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour un peu soutenir ces agents là au fait du question de corporatisme mais dara mais ce sont des agents qui sont des travailleurs qui sont là qui ont des droits acquis et que aujourd'hui ils font face à une situation boo xamante ni c'est on peut dire que c'est inédit parce que kenn warul la les droits acquis kenn waru ko laal te tey jii ñoom ils sont face à cette situation là yéen